tàmbalee xibaar yi ak wu tiis di liggéey liggéeyub Cheikh Mouhamadine Samba Diallo di xalifa bu Sagne Bambara moom kilifa gu tedd gi di Cheikh Mouhamadine Samba Diallo xalifa Sagne Bambara euh, la ñu yëgal ni euh, daal dina euh, noppalu wàccub liggéey ñu koy jaale umma islam bi yëpp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xarikal ca yokk leeram naka noonit ci wàllu xibaar bu tiis ca Kaffrine nelawuk imam Birane Mbaye imam Birane Mbaye di imam xatib bu jumaay jàmm gën jóbeen Euh, di it ka fa toogal xalifa bu tedd bu euh, tijaan yi euh, ca Kaffrine moom tolloon ci juróom-ñeent fukkeelu at ak ñaar naka noonu ñu ngi ñaan suñu borom xarikal jëna ca taas ñu ci leeram RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñetti minutes